ngi tudd Baye Makhtar Niass. nekk sëti ah. Mawlana ci Cheikh Islam Hadj Ibrahima Niass radiyallahu anhu man xam nga tey ci bëccëg dañoo nekkoon suñu président Serigne Mboup këram ñu amoon réunion boo xam ne ñun zone waa zone 4 ci waxtaanee nu ñu mën a defee élection yi ci jàmm te ku nekk xam na ne président Serigne Mboup tout le temps mu ngi oo ci jàmm même cortège yi bu ñuy génn sax bu fekkee ay nit a ngi ci oto yi la nga dana wax ne ñu wàcc ñëpp dugg ci oto yi pour bañ rek. ñu am gaañu gaañu wala rëq-rëq bi ma nekkee ci cortège bi dama doomu imam Cheikh Tidiane Ali Cissé o di mu Bachir Cissé Mohamed Bachir Cissé ne ma foo nekk ma ne ko maa ngi ci tournée politique mu ne ma ñëwal urgent Mohamed Cissé dañ ko dóor sama buntu kër papa ba pare kidnappé ko yóbbu ko kër Cheikh Ibrahima Niass doomi alhaaj Mohamed Zeynab Niass suñ papa la suñu waay jur la ma dem jël ko moom dugg ànd ak moom dem di jëli Mouhamed Cissé bi may dem fekk naa imam Cheikh yónnee na ay nit ñu dem jëli ko bi ma ñëwee dugg kër sëriñ bi fekk ko mi ngi toog moom ak Cheikh Yérim sekk ma gis ko ci façon boo xam ne daal am na ay gaañu gaañu yu metti ma ne sëriñ bi kii bàyyi ma ma yóbbu ko hôpital ci laa ko jëlee dugal ko boobu hôpital bu ndaw rek sama xel nekkoon ma yóbbu ko fa waaye bi ma demee gis médecin yéex ma xalaat indi ko clinique Lamp Fall mi ngi nii gaañ nañ ko dóor ko ki ko dóor. du kenn ku tudd Abdou Salaam Niass ak rakkam bu tudd Imaam ñeneen ñaar ñi ne xaw ma ne moom nag buñ ko yóbbee bu ñu leen téye ñooñu danay wax ñeneen ñi ci bokkoon en tout cas dañ koo fekk ci li may expliqué mu taxaw ñu ne ko di mel ni kuy expliqué moom fi mu taxawee rek waa ji tëb dóor ko xam nga kuñ bett dóore mën nga mu pert ñu dóor ko ba mu daanu xam ñetti xale yooyu jàpp ko en ko dugal ko ci oto yóbbu ko ko seen kër waajur li di des yeneen koy gis ci vidéo mi ngi ci réseau yi waaw loolu rek laa ci xam mi ngi nii ci clinique bi mi ngi nekk ci xaale bu metti te lii politique jaru ko ñun jàmmoo lañ oto président Serigne bu mi bu ñu oon ci kay xeex wala kaay leneen ñu ñi kenn ti ñun du ko uyu waaye daf ñu ooti jàmm pour ñu ñëw ànd nekk ànd nawle pour liggéeyal suñ commune loolu rek la ñu ooyee ay adversaire politique rek lañ dañoo dem ba ñakk ci mouvement rahma lañ bokk man duma ko nëbbu Abdou Salam mi ngi ci mouvement rahma ñu ànd ci jàmm ku ne boo fajalee sa bopp kon kenn du dem te nag ñi ngi autorité yi ñu teel tee jóg ñii def ko nii duñ leen bàyyi danañ leen topp daan leen ci li ci war danañ dem ak ñoom ba fa mbaxana nekke benn lu ñu am ñu jël bu autorité yi réagiré teg leen ci yoon teg daal daan ñu leen war a daan ba lii doo amati ñu xam ne danañ dem ci élection yi ci jàmm buñ defee leneen yaakaar naa ne bu ñu oyee ci violence duñ ay ragal duñ ay tapette yaakaar naa ne kuñ bàyyi sa wànnentu war ngaa bàyyi suñu wànnentu duñu ay tapet kii nag jàmbur la bu ñëwoon ci dëkk bi te lim def dara garaawu ci dafa gis benn kilifa gu def benn vidéo wax ne nommé na diw ak diw kii jox na ko departement bi kii jox na ko commune bi mu ne nañ leen xaabale 23 janvier incha allah lii man mi am na droit def ko man maa ngi estati ñoom bu ñu amee lu ñu ut nañ ut ñu ñun ñu seen nawle ñu dëkk ak ñoom bu fekkee ñeme nañ te ku ne am nga droit far fi nga far ku ne am nga droit far fi nga far tañ bàyyi jaxase yi jaxase danaa ko ci lancé di jaxase tariqa yi ñu nag Touba ak Tiwaawan ak Laayeen ak ñëpp ay benn lañ man mii di wax ak yéen kenn mënu maa génne ci njabooti Baay Ñas